mooy wax ndaw ñi laay waxal ñama bokkal mouvance présidentielle fa laay commencer dans la vie il faut toujours croire en soi et en ses valeurs c'est ce qui fait la force d'une personne nous avons notre candidat nous avons un leader qui a développé le Sénégal croyons en lui continuons à le soutenir dans la plus grande loyauté et d'une manière très ferme rester debout parce que le président Macky Sall a un bilan positif rester encore debout à faire face à ces criminels à ces voyous à ces pyromanes qui veulent échanger la vérité par le mensonge nañ leen bokk ndey bokku bàyyi parce que l'heure est à l'unité pour la consolidation de toutes les forces vives de la mouvance présidentielle buñ leen xoqatal ba ngeen di daw mbir mi dóor fayu la liste nañu seeni kër ñoom liste nañu seeni kër man da la ma waxoon laay wax fi tey ku ma may jàmm danga am jàmm